stato bu davutlanma. Dur dur dur dur. Dur dur dur. Dur. Hı. Ha, sen alacağım. Kon mooy moom itam saxiix moo ko tax a jóg saxiix jamono ya saxiix ak daif lañ daan wax saxiix ak daif rek lañ njëkk lu nekk maqbul rek saxiix lañ ko daan wax xeer maqbul mooy daif kon moom saxiix moo ko taxoon a jóg waaye nag bu demee ba daif sës fa agsi na ci bunt boo xam ne lam fa am daif rek la amul saxiix dana jël daif foofu loolu loolu mooy sartam kon mooy saa moo ko tax a jóg waaye nag bu demee ba daayif sës fa dana ko jël bu dee na yi nag dana jël sax yi waaye day jël koo xam ne dëppwul ci ak sànnem mhm. masalan eh, raawi boo xam ne Eh, kon sanad boo xam ne daal amut ca benn raayu bu ñëpp dëppoo ci ci ne wérut doyut sanad boobee dana ko dana génn dana ko andi xadis am sanad boobaa nag mën naa nekk saxiix mën naa nekk xasan mën naa nekk daif ci ñenn ñi ci ñenn buñ ne dëppoo wuñ ci rek mooy benn kenn doyadalu ko wala ñii dañ ko doyadal ñii dëgëral ko waaw bu ñëpp maasee ci doyadal ko nag ñu doyut moom du ko jël du ko andi du ko andi aleykum salaam wa ci ki ko doyadalut moom sañ lay doon ci moom ki ko doyadalut hmm. ki ko doyadalut moom dana ko jàpp sañ ku mel noonu moom na sañ dana ko andi ginnaaw ñëpp dëppoo wuñ ci ne ko doyadi rek ñëpp dëppoo ci ne ko doyadi nag du andi xadisam xasanun hmm. saxiix te Tirmisi di ko wax lu bari lu mu ciy jublu bu ko waxee بان حديث ثاني هذا حديث حسن صحيح بسم الله يقول محمد بن سند ولا ابن بن سند عمل بن سند yenn yi daa nekk sax yi nekk xasan yenn yi daa nekk sax lenn ci yi daa nekk sax ya lenn ci sanat yi nekk xasan du am nañu ne waaye xam nañ ne saxix la xam nañ ne yenn lenn ci sanat la lenn ci sanat yi xasan la bu dee dafa am lépp benn sanat bu dee benn sanat la am nag hmm, waaw bàyyi bàyyi ko mu mujj Nene da sanyo. Kake benn bu dee benn sanat la xadis bi am. benn sanat la xadis bi am benn sanat la am mooy benn tarix rek la am. asanul sahih bu fekkee dafa am ci melaw ki nga xam ne moo ko loolu mooy lan loolu mooy lan hmm. Hmm. Hmm. te dëppoo ci xadisam ndax noonu la ak ndax noonu la ndax ndax loolu la ndax loolu la dañoo dëppoo ci jël jël xadisam ndax loolu la Hmm? xasanun saxiix mooy ñii dañ ne xasan la ñii ne saxiix la daa am ñu ne xasan la am ñu ne saxiix la ci borom xam-xami xadis ah, benn sanad la am sanad boobu nag borom xam-xami xadis yi am nañu ko atte ne xasan la am ñu ko atte ne saxiix la hmm. waaye kon lu ñuy lu ñuy jël la lu ñuy sukkandiku loon lu mu ci mën di doon ñu ne xasan la daañu ci sukkandiku ñu ne saxiix daañu ci sukkandiku kon wute wuñ ci ne daañ danañ koy jëloo duñ ko jël mm-hmm. la wute mooy saxiix la wala xasan am ñu ne saxiix la am ñu ne xasan la mm-hmm. moom nag bu ko andee moom Tirmisi bu ko nettalee nag wax loolu nettaliwaale loolu nettaliwaale ne am ñu ne xasan la am nañu ne saxiix la mm-hmm. bu dee benn ñaar ëpp na benn sanat nag day fekk ne kon lenn ci sanat yi dafa nekk صحيح لأن الإنسان هناك حصل لكن الحديث المقبول بن خالتي نخوت نغلنن ولا ووتو تغلنن بن ووتا نوم ين حاج حديث مقبول بن خالة نخوتنا اك بنن حديث مقبول ولا ووتو تك بن حديث مقبول ووتو ووتو ak bu fekkee wuute am na itam nañ cee doxale yan yan yan xaaj moo ci am yan xeet bu fekkee xadis maqbul amul benn maqbul bu mu wuteel nuñ koy tudd muhkam wute wut ak benn wute wut ak beneen xadis maqbul kon muhkam lañ koy tudd wuute ak beneen xadis maqbul nag حديث مختلف مختلف حديث هناك مختلف الحديث مختلف ما يبقى فيك آه، جمع منانك جمع وجمع منام ودوت من بنات كنك جمع من منام مختلف الحديث waxoon yépp la ñuy jëfe bu jamoo munta am nu ñuy def nu ñuy def ñuy def bu fekkee ñaari xadis wuute nañ te jamoo munta am bu jamo ma ne am rek kon may wuute gi du wuute dëgg-dëgg du safaanoon waaye wuute la wuute mooy boo xoole ci kaw gi dañ mel ne seeni maanaa bokkul waaye buñ gëstoo xool bu baax settantal te dañ gis ne seeni maanaa safaanoo wut mën nañ leen boole jëf boo lay tudd muxtaliful xadis buñ xoolee nag gis ne seeni maanaam mënuñ leen a boole jëfe nan la ñuy def nun koy wax dëgg-dëgg nan la ñuy def lu ñuy def lu ñuy def Hmm, lu nuy def buñ xoolee gis ne wute nañ te mënuñ leen a boole mu nuy def sëñ Alaaji kon dan dañuy nàngam nàngam ji moo nu yóbbu ci loolu dañuy xool dañuy xool ndax nàngam dañuy xool ndax hmm. dañuy gëstu ndax ndax hmm, bu jëm nekk rek la cay tege mooy dañuy xool dañuy gëstu ba xam hmm. ba xam ba xam ah, ok waaw ah, dañuy gëstu dañuy gëstu ndax danañ mën a xam bu njëkk ak bu mujj buñ ko xamee li nga wax door agsi buñ xamee bu njëkk ak mujj ñu xam ne bi mujj dafa nas ko bu njëkk hmm? waaw gëstu boobu dañ koy wax dañ dañuy gëstu buñ nee ba gis ne wóote nañ te mënuñ leen a boole kon dañuy xool gëstu ndax danañ xam bu ci njëkk ak bu ci mujj kon xamee ne bii moo njëkk bii moo mujj ñu nekkoon ñu bi mujj dafa nask bi njëkk buñ gëstoo nag mënunoo xam loolu xamun loolu lu cee tege la ñu door a tarjeexe la door a tarjeexe tarjeex mooy kon xool ba tey gëstu ndax dana am fuñ mun a sukkandiku ba am buñ ci téye bàyyi ba ca des loolu mooy tarjeex bu nu defee loolu nag ba tey taxul ñu am ko moom itam gëstu gëstu xool gisuñ fuñ mën a sukkandiku bu ma leen tàqale boobaa nag am na ko waxoon dafa teel a ànd ak foofu booba tawaquf ci lay door a ñëw ci lay door a ñëw di wéy nag mooy li fekk ngay am ci daal doo doo doo ci jël benn li fekk ngay am ci slaay doo ci jël benn waaye loolu daanaka li ñaan xaaj xaaj la ci wàllu xel rek mais dëgg-dëgg bu ñu ko toppee loolu loolu du wéy mukk moom tawaquf moom du wéy wax bu yàggee ak ngir suñu mën a sukkandiku bu ñàggee gëstu temps ngir suñu mën a sukkandiku ba ba bii moo gën a dëgër tey nag yi ñuy dañuy demaat ci yeneen xaaj ak yoo xam ne moom aju wut ci nangook ñàkk nangu ak yële weesu moom ci bu ñu xoolee ndax des nangu xadis bi wet des ko nangu mooy xaaja njëkkoon a wax saxi xasan ma jàlloon bu dee xaaj yi nag ñoom ajuwul ci nangu ko ak ñàkk koo nangu waaye manis naa wax ne kon ay tur daanaka rek hmm. ay tur la rek waaye desu ci xamee ne buñ nangu loola buñ nanguwul mi ngi njëkk algarib wal aziz wal mashhur loolu lañ koy tudde léeg-léeg it ne dañ naan anwaawul xadis bi atibaari turuqi wala bi atibaari adadi ruwaati mooy mooy mooy mooy xaaj yooyu ñu tudd foofu algarib wal aziz wal mashhur وما به انفرد راو مطلقا فذاك بالغريب قد تحققا وما به الإثنان قد تفردا كذا ثلاثة عزيزا وجدا وغير ذا المشهور كل يتضح فيه الضعيف وكذا الذي يصح ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمع حذرا كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف وقد روى حديثه من كذب أكثر من ستين ممن صحب كون بون دخل حديث في والو لمبي كو نيكي خاجي مو الغريب والعزيز والمشهور mu ne wa man farada bihi raawin mutlaqan maa bihin farada raawin mutlaqan man farada bihi raawin mutlaqan mooy xadis boo xam ne ab raaw yi da koo wéete da koo wéete mooy da koo nettali moom rek moom rek mutlaqan ci anam wéet wéete gi anam gu mën di ak ku mën di toll ci biir sanad bi waaw ku mën ak anam gu wéete gu mën di بودان يرنت في جواب بن صحابي رك رك رك رك موجود في مم ونت لك محدث بو يعني كنت ده غريب بودان أب صحابي كان من رك كجرا جم محدث يعني كنت ده غريب بودان أب تابي كان رك كجرا جم يعني كنت ده غريب نقول نيوه بودان الطبقة بيب ماس جب جب جب جب كان كنت نت لي يعني كنت ده غريب mooy mutlaqan jooju moo xam fu mën di toll ci biir sanad bi moo xam tam anamuk anamuk wéete ga nu mën di demee moo tax mu ne fadaaka bil xaribi xat taxaqaqa lu mel noona xarib lañ koy mooy xarib misaale na ko ci sarxu bi حديث بيدي السفر قطعة من العذاب السفر قطعة من العذاب بو بخاري عندنا كو واي غريب لا مثالنا بس وما به الاثنان قد تفردا كذا ثلاثة عزيزا وجدا وما قد تفرد به الاثنان farata ak indi farata yëpp ñoo yem rek mooy wéete lu lu ñaar wéete nag nga xam ne ñaar ko nettali kon ñaar ko jële ci kañ ko jële wala ñett nekk noonu ñett itam lu ñett jële ci kenn moom wujida azizan moom aziz la kon xarib mooy lu kenn nettali xarib aziz mooy lu ñaar wala ñett nettali dañ naan lu tax ñu tuddee ko Aziz xarit moom tur yu tur wi tur wi tur wi tur wi leer na ma mooy lu tumuranke lu kenn nett rek day mel ne lu tumuranke dafa néew bu dee Aziz nag dañ ne lu tax ñu tuddee ko Aziz benn Aziz dana firi lu lu yombuta am Aziz hmm? li ñuy wax jafe jafe ci ngir am ko gis ko jafe yombut yombut a gis amna ñu ne tax ñu tuddu ko aziz moy la xillatihi ndax da bari wut ci bir hadith am ñu ne aziz ñu ko delo ci aziz bi jóge ci carton doole ndax moom ginaaw lu upp kenn nettal nag kon da am doole da deugar ko ñaar nettalee le mo gëna deugar lu kenn nettali bu ko ñet nettalee moo gën a dëgër lu kenn nettali ay lu ma xew lañ ci dund rek mo ñaara ko nettali wala ñett mom misaale nako hadith bi ne yunus bi saa sallam di wax ne la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajmain to bukhari muslim ñoom ñëpp ñu andiko to boobu asis la ko la misaal wa ghayru dal mashhur wa ghayru dha ludul li nak ludul li ma ludul mooy lu dul du asis kon mooy loolu lu ëpp ñeent lu ëpp ñett nettal nañ ko waxeeru ba kon loolu lu dul lii mooy lu loolu kon du garib du aziz mooy al mashhur kon mashhur mooy mooy xadis boo xam ne lu ëpp ñett nettal nañ ko lu ëpp ñett misaale na ko moom xadis bi yonent bi wax ne inna allaha la yaqbidu al ilma intizaa'an walakin allah yaqbal yaqbidul ulama ba mu mat ba mu jeex ñi nga xam ne daal yàlla jële fi jële xam-xam dina jëmmi nit ñi dañ fi nekk am xam-xam mu dindi xam-xam bi ci ñoom du demee noonu waaye ñi am xam-xam li fi jële ñu demaale seen xam-xam ñu yóbbaale seen xam-xam xadis boobu la misaala ci mashhur kon tudd na ñett yi xarib bu dee kenn ko nettali Aziz bu dee ñaar wala ñett mashhur bu ëppee ñett mooy nag kullun yattadix fihi daifu wa kada alladi yasix kullun ñoom ñett yëpp ñoom ñett yëpp lii lépp muy ñett yi yëpp yattadixu fihi daif waaye daif dana ci am rek la bëgg a wax daif dana ci am daif am na ci xarib am na ci aziz am na ci mashhur غريب أن ضعيف عزيز أن ضعيف مشهور أن ضعيف وكذا الذي يصح نكون أنتم صحيح أم نكون يطيب ما بسم الله لجبار يوم دنيا وحنا سايا ضعيف رك بنيا سايا حسن تم دجي دوغالي كون مي دال نيت خاجي ني وخون تي بو كو دان نغو نياك نغو ييب تي ام لي مي فير رك موي كون ديسو تي خامي نانغو نكون نانغو نكون bu ñu ne xarib la rek lu tax ñu xamee ci ne saxiix la wala xasan la wala daif ndax lépp la mën a nekk bu ñu ne aziz noonu bu ñu ne mashhur noonu bu dul ci biir mashhur nag am na ci boo xam ne moom bokkul foofu mooy mutawaatir moo tax mu ne summa minal mashhuri ma tawaatara mashhur nag am na ci lu am tawaatur kon mooy lu nekk mutawaatir muy leral mutawatir moy lan moy wa huwa ma yarwihi jam'un xudira kadhibuhum urfan moy hadith bo xamne mbolo mbooloo netti mbolo man ko ma kadhibuhum urfan xudira moy munia moy sen sen deppo ci sos ko kadib seen wax lu amut senu deppo ci sos ko day lu munta nek orfan orfan moy adatan moy dal kenn munta japp ne dañoo depo fe dañoo daje fenn dëppoo di tos sos mbooloo mo mu mo kon ci ma solo moy ëpp na ñatt te ñi ngir yi taxna ba kenn munta kenn munta يستحيل تواطؤهم على الكذب يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة ولا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ولا ما خمنا كي عادة دال munta nek aadama li baax am li baax am ci li am dal munta nek ñu dëppoo di ko sos ko ñu sal dañ nan mbolo mbok class ab class mbolo lañu don. doon waaye gannaaw ñoo bok fu ñu dajé bis bu ne bu leen ñoom man nañoo dajé di dëppoo ci dara ne bu ñibé ci ñibi dar salam fi ñibi Mbàkke kii ñibi daarul mi nan ko nek ñibi fam ñibi kenn ku ne nettali lool te fekk ñoo ci dëppoo woon mën naa nekk ndax ñoo bokk fi ñuy daje bu demewut noonu nag kii day jàng kee di ministre kee di tailleur kee di dorkat wotiir kee di dorkat wotiir nangam nangam nett leen doo dañ naan eh, yoon wut maanaa ñuy daje fenn di ko di ko sos di ko dëppoo nga joxe misal ci tawaatur mutawaatir naka masxil xuffi hadith yi yi saxal mas al mas mas al mas al xuffeen di boobu am na naka nonu rafon al yadayni ni al li yaday ci ñaar la ci julli ak ci ñaan ci julli mi ci takbiratul ihram def takbira xam yëkkati ñaar loxo yi loolu tam xadis yi ko saxal am nañ tawaatur xadis yi saxal ne yonente bi daana ñaan yëkkati loxoom itam am nañ tawaatur moo tax mu ne rakkoon yooyu day ne aadimun lil xulfi yëkkati ñaar ñaar loxo yi ci buy def takbiratul ihram ci julli ak buy ñaan amul wuute dafa ñàkk ak wuute mooy wuute amul ci ak benen muy man kadhaba alayya mutamidan mu ne waqad rawa hadithahu man kadhaba aktharu min 60 mi man sahiba xadiisam bi mi wax ne man kadhaba alayya mutaamidan falyatabawa maq'adu min an-nar momit ci mutawatir la bok fam tambule mu ci sahaba rek jëpp lu ëpp juróom benn fukki sahabi yi nettali nañ ko kon lool mo waju ci xeeti xadiis yi wala seeni xaaj buñ dee xool lim bi leen la li ci topp moom itam aw tur la rek xadiis boo xam dañ ko tudde musalsal rek waaye moom it doo ci dégg ndax luñ nangu la wala luñ nanguwul la lu ko aw turam la rek musalsal bu ñu xoolee baatu musalsal ci silsila la jóge hmm? silsila kon mooy loo xam ne xeetu daa am lu ci lu ci di ci baamu bo mel nag càll la cyalla la ni muy ay ben mel mbir mu ñi baamu rek ben lonk-lonk la ñu defaat diko do do ba mu kon musalsal mooy ak baamu da ci yam ci sanad bi yëpp mu ne musalsalun mal wifqu fihi wujida fi sifati ar-ruwati aw wasfi al ada وقل وصف للتسلسل سليم لا المتن من ضعف ونقصه علم مسلسل حديث بنيت ده مسلسل ماي ما وجد الوفق فيه لما وجد فيه الوفق ما وجد فيه الوفق ما حديث بوب دبو أم نجا duñ ca dëppooye dëppoo ci fii sifati roi ci نتلي ما سنة mooy sanad bi kenn ku jamono ji mu koy nettali melaw wi mu moom la ñëpp ame jamono ñu nettali xadis bi na bokk melaw wu ñu amee aw wasfil ada wala boog anam giñ ko nettilee ba tey genn anam la anamuk nettali kii nettali ñoom dañ daan jëfandikoo baati sami'tu wala axbarani ولا أخبر ما ولا حدثني ولا حدثنا ولا عن فكيف سنة بيب كان كنت عندنا سمعت لون دين نام دفو أمنا تيتي وصف الأداء كن يبني أخبرني نون كن يبني أخبرنا نون كن يبني عن نون وفكا تيتي نتل نقل لا يكمل حديث وحن دين نام لا حديث بي كان كوين دا كوي واخ كان كوين دا نان ديو نانا ما tabam ba mu noppee dafa muuñ am na xadis boo xam noonu la dikkee diw nee na te ba mu noppee dafa muuñ diw nee na ko te ba mu dafa muuñ diw nee ko ba ni mu àgg ci yéen bi saa sal loolu tasalsul la ci sifat arwa wala diw nettali nama ma te bu muy nettali mu mu mu mu mu rabbale ay baram ak samay baram am na xadis bu dikkee noonu mu rabbale ay baram ak samay baaraam wala mu ràbbale ay moom rek bu hmm, mel ne bi yonte bi di wax julli ñu ni ñu war a booloo kalbun kalbun yaan par hmm, ne shabaka bayna asaabia ku koy nettaliwaat tam day def noonu ko defee sanat bi yëpp loolu am ci loolu sifa la kon ci ci nett ñu xam ne dafa baamu ci sanat bi yëpp bari koy nettaliwaat tam day def noonu bu ko defee bu ñu koy nettali moom it kenn ku ne day wax naan ki ma ko nettali bii ma ko nettalee def na noonu ba sanad bi jeex loolu lépp ci tasasul la dugg waaye nag am na ci lu mu ci teg mooy waqalla wasfun li tasalsuli salim mu ne waqalla wasfun li tasalsuli salim mu ne néew na tasalsul bu ñu nettali te muy lu mucc mooy muy lu wér daal jëmmi tasalsul ko ci boppam mën naa am mu am ci xëy na ñaar ñu ko defal la ñett gaa yi mottali ko far dajale ko ñëpp hmm? wala yu mel noonu waaye neen daal néew na ci néew na ci tasalsul boo xam ne nañ ko waxee noonu la wér jëmmi tasalsul bi ci boppam ci sanad waaye nag mu ne lal matnu waxu nag matnu bi matnu bi moom تسلسل بن ياك كبير تيود مدن بير تسلسل من صفة صفة رواية لذلك ولا صفة أدابة صفة بن ياك كبير تيود لين نتلمهم كبير من سليم من ضعفين وقال وصف للتسلسل سليم من ضعف كن نيونا تسلسل بني نتلم بمجتي ضعف أنا كلا المتن matn bi taxul muy wax moom matn bi moom tasasul ñàkk wér teewut matn bi moom wér wa naqsuhu olim mu ne am na it xam nañ ci nag moom tasasul boo xam ne naaqis la naaqis muy lenn ci sanat bi rek am na ci waaye nag dajalewul sanat bi loolu moo copp lu wér moom waaye nag loo xam sanat bi yëpp da kii moom am na ci yuñ ci wax yoo xam ne demul noonu day fekk xëy na ñaar la ci am wala ñett ñu bëgg lu tumuraan lu lu

عن آخر وعكسه مبين من قد تقارب بسن وسند ونادرا يلفى بآخر فقد مدبج دنا موي ما ينقل القرين عن آخر قرين موي صاحب هذا جودي أن ماس ماس maas commencé ak nit commencé nit kon mooy euh, xadis bopp nit da ko jële ci commencé la waat suufoo mu biin te safaan ba itam doon lu am mooy dafa commencé itam jële na ci moom kon mooy ñaar ñu maase daal te kenn ku ne jële ca moroom ji hmm. mu dab waaw mën naa nekk benn xadis bi benn xadis bi jëmmi xadis ma nettali naa la ko yow tam nga nettali ma ko hmm. Hmm. wala bu dul jëmm ji itam am na xadis yoo jële ci man am na yu ma jële ci yow mu da bañ lañ koy tudd xariin an aaxar nag mooy maas yooyu lay firi maas mooy lan man xat taqaaraba bi sinnin wa sanat mooy ñaar ñoo xam ne dañoo jege ci at seeni at daa jege wa sanat dañoo jege itam ci ñi leen di jàngal leen di jàngal lu ci bari ñu seeni at jege lu ci bari itam ñoo ñooy bokk ñu leen di jàngal wala ñu leen di jàngal moom itam duñu magantee noonu kon ñoo xam ne kon seeni at sorewut ñee ñi jële ca ñoom itam sorewuñ ca it ñu tuddee ay aqraan mu ne wanaadiran yulfa bi axirin faqat mu ne néew na rek lu ñuy tudde mutabbaj néew na lu ñuy tudde mutabbaj bu fekkee jege gi daa am bi aaxir aaxir mooy li mujj tudd muy sanad jege gi ci sanad bi rek la amee waa ci at amewu ci jegewuñ ci at waa jege nañ ci sanad nee am na ñu koy tuddee ba tey mutabbaj waaye nag nee loolu lu néew la mooy dëgërul daal li gën a dëgër daal ñu ñu ne ci ñaar yëpp la ñuy dañuy jegee dañuy ci sinn jegee ci sanad tam waaye bu jegee ci sanad rek nag am na ba te ñu ko tuddee mudabbat faqat faqat ji faqat lay firi hmm? xat ak xat benn ñoo bokk lu ñu firi waka am da bokk ta foofu am na fu ñu ko doon ci alfiya hmm. xat xat mooy xat rek Fakat, moy fakat, hmm. kon moy. taqaarub bi am ci sanad bi rek loolu lu néew la lu néew la ñu koy tuddee mu dabbaj xëyen fa mënees naa ci xëy ñëw day ci duggu day xaw a gudd neex ñu dakk jël ko moom rek Mm-hmm. man kese ba ak kër Moussa Diouf. waaw xadis boobu loolu juróom-benn fukki saxaab yi nettal nañ ko. waaw hmm. hmm. hmm. ah, dab baja dab baja zayyana lay firi rek. dabbaja zayyana mu dabbaj mu zayyan waaw waxin la rek ñoo dañ ko jàppe lu lu lu lu rafet daal lu taaru lu kii ñu maase kenn ku ne jële ci morom bi waaye luxatan mu zayyan lay fii نعم بناقل على الطرق من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن sëriñ. gëstu su fekkee dama dégg leçon bi mooy. mooy. anwaaru xadis. باعتبار باعتبار باعتبار الطرق wasalaam dem ñu ngi leen di jàppee ñetti ñetti xaaj ñu tudd xarib te mooy loo xam ne benn raay bi moo ko wetu ak ñu tudd aziz te mooy loo xam ne ñaar ñaar wala ñett dem ñoo ko mashhur mooy loo xam ni lu ëpp ñett solo na mu ne nag waaye euh, bokkut mashhur nag su fekkee dafa am tawaat mm-hmm. te mooy mbooloo bari solo ko moo xam ne seen daje ci sot ay ay ay lu mm-hmm. demee mm-hmm. boobaa moom mu tawaatir waaw hmm? loolu yi ci des misaal la rek waaw ak misaal yi mu jox beneen ah ah okay. ah mooy loo xam ne dëppoo am na ci ñi nga xam solo addis bi am nañu ak dëppoo ñun ñun solo hadis hmm. sifatu sifatu roi ñoom seen bopp jamono ji koy nettali am na sifa buñ bokk. sifa bi moo xam wax ji ñuy wax la moo xam jëf ji ñuy jëf la. Hmm. kon xam dañuy wax dañ naan la bi ma koy nettali mi ngi taxaw. rek ñëpp noonu lañ ko waxee. diw nee na ma te boobu ma nga taxaw diw nee na ma te ma nga taxaw loolu ci soo turuwaan waaw ci adaa nag mooy baat bi ñu jëfandikoo bi ñu nettali waaw axbarana wala samiatu wala xaddasana wala xaddasani wala aan ñëpp dëppoo wax wax loolu bi ñu nettali noonu lañ ko nettali mooy wasful adaa aku kon ñoom loolu la ñoom dañoo dañoo jàpp nas bi dañ ko waaw loo xam ne ñaari nit. foofu wal ah, maqbul ci boppam rek. moo xam ne yooyu ñu wax. buñ koo nettali. bu fekkee amut lenn lu wuute ak moom. lu nekk maqbul na moom. mooy maqbul boo xam ne amul beneen maqbul bu wuute ak moom. muhkam nañ koy lu wuute moom. bu dee amul beneen maqbul bu wuute moom. kon moo xam ne bu amee bu wutee moom rek ci topp ci lay wax bu amee bu wuteeg moom tañ mën leen a boole ñu tudde ko muxtaliful xadis ñu leen mën a boole ñu tudde ko muxtaliful xadis ñoom ñaar ñoom nekk naan muxtaliful xadis bu fekkee mënuñ leen a boole nag ñu xool ndax danañ xam bu jiitu ak bu mujj buñ ko xamee ba jiitu dañ naan man suux ba mujj nekk naa si xam bu fekkee xamuñ bu jiite bu mujj nag seet ndax daañ mën a tarjee mooy danañ mën a am fuñ sukkandiku ba ne daal bii moo gën a yeye jël ñu jël ko bàyyi ba ca des boobaa ba ñuy bàyyi charge lay tudd charge imam rek dañuy jël tudd da da ila ifan mahfuz bi bi sarmo ni bay insha Allah ta'ala anwa loolu man man ñun doo ko doon wax loolu mooy jubluwu ci man lu waaw من ضعف الجد لا عند الجد لا عند قال وصف سليم قال وصف سليم من ضعف لا المتن دور نيو ونقص عليه دور مج ونقصه مو نقص المسلسل ونقص التسلسل لا وخنا موم عليم خمس نكو موم تسلسل بو خامني ماتول موم امنا جي يوير تسلسل ويرنا تا ماتول fa new na ci lu wér waaw matal hmm? ah, suba suba bu mat te ah, moom néew na ah. waaye nag yi matul moom moom am na am na mel na ñaar ñaar dëppoo nañ ci ci melo moom loolu bari sanad bi wala ñett. nee na mi ngi koy waajal. waaye nag sanad bi yëpp. dëppoo ci melo moom. am na waaye nag na ci lu am lu wérut luñ ci wax te wérut. kenn rek moo ko nekk. Hmm? Hmm? Ah, ok <laughs> kon du weesu ñun de. kon du accès bi duñ ko xam du kenn ci doon ci moom. maanaam man bu fekkoon ne xadis bi man rek maa ko jëlee ci yow dañ hmm? naan xarib min haadal wajh kii day wax lu mel noonu lu bari Tirmidi mooy xarib la ci ci ci jële gi ma ko jëlee ci yow. amul keneen ku ko jëlee ci yow loolu lay firi rek man rek maa ko jëlee ci yow waaye waxagun man ci ñi ko jëlee ci man dañu xool ci man ci man ndax kenn ko jëlee ci man bu kenn jële ci man ba tey muy xarib ci foofa ko ñaar jëlee ci man muy aziz ci foofa waaye nekk xarib nag ci yow nekk xarib ci ni mu jógee ci yaw waaye mën naa nekk aziz ci ni jógee ci man man wala mu nekk mashhur ci ni jógee ci man waaw mën na ko mën na koo nekk ci ci tabaxaat bi moom rek lim jógee ci tabax bi dem ci bi mën naa nekk en sus ci misaal xadis xadisu innamal a'malu binniyat xadisu innamal a'malu binniyat dañuy wax ne saxaaba yépp Seydina Omar kese kese kese moo ko jëlee ci Yonent bi sallallahu moom kese Seydina Omar tam àddina sëpp kenn ku jëlee ci moom kooku itam kenn rek ku jëlee ci moom foofu nag la door a tasaaroo kooku nag ñu dul jeex jële ko ci moom. xarib la la ca kaw xarib la ca kaw nag ci ci tabax yu njëkk yëpp xarib la ci. Hmm. xarib la ca kaw ak ci la ca topp ak ba ca topp door nekk nag masuur waaye boobu mënut a nekkati mutawaatir mukk moom ndax mutawaatir melo yi ñu wax day am ci tabaxaat yëpp. mutawaatir moom liñ ci wax day am ci tabaxaat yëpp. ci suuf ci kaw. waaw day day am ñu ko ñu bëri. waaw dañu war ñu kon mooy loo xam ne benn saxaabi rek moo ko jël ci yonent moom mënut a nekk mu tuddee déet boobu du moom rek moom. ah du moom rek. du moom rek ne moom rek la de mais daal laa xam ñu ne moom moom rek moo ko nettali. dina moom. xam naa daal toog ñu demee hmm. hmm. Hmm. boo ci demee di xam. di nga xam di nga xam li jaay am de da nga xam rijaal yi maanaam ñu ñu jële ci hadis bi ñu ñu toftalan masalan hadis bi ñu jële ci Omar wala ñu jële ci Ali wala waaw waaw dañu mën a xam ne dañu mën a xam ne dañu mën a xam ne في مسركم أغرموا يدين في الصلاة في الصلاة وفي الدعاء في الدعاء من عاد من الأولى أنا جاي أمور بوتنا شيء شيء متواتر له. أمم. آه. وقد رواه حديث من كسبان. آه أكثر من ستين. الإمام صاحبه. ba tey meneen misaal lay jox rek day joxe misaal ci mutawaatir hmm. nee na la ka masil xof fi jox na la ci benn hmm. ak rafoon yaday ni hmm. muy ñaar fi salaat ak fi duwaa ak man kadaba alayya mutaamidan boo ma xam ne moom ah, waaw ah, beneen beneen yëmut ci rek ne la la waaye dalaa wax ne dalaa woon sax bi ko nettali ci saxaaba yi topp na ah. وقد روى حديثه من كذب من كذب علي ولا يقول وإذا قولتم xam nga ci kaw day yóbbu mu ne lépp am lépp ji lay wax ah kon nag yow yow li ko déggoon dégg naa yow maa ngi doon xam ni ko déggoon yow. day day da koy xaw a noonu. bàyyi ma ci man kasaba ji rek. كان مراب جمع عن ثقة an siqa rek. kon an jamaan rek baax ci kii yëpp tabaxaat yëpp li ñu wax fii da cay am tabaxaat yëpp day am jamoon tuxiilu laada tawaatoo maal kadib tabaxaat yëpp comme nee na sittiin sittiina saxaabiyan moom li tax ñu xam ne ëpp nañ sittiin mooy dañoo gis ñu ñu ko jëlee ci lu mat sittin kon nañu xam ne ñoo topp saaba yi lu ëpp sittin jël nett lañ ko ci ñoom itam ñooñu itam bu ko kenn koy nett leer dina pas sittin moom itam hmm? yu mel noonu ba ni mu yàgg see ci téere bi fi ñu koy bind ci téere tabaxaat yëpp da cee da cee da cee demee nii ñu wax. loolu mooy mu tawaat mooy mu tawaat boobu dafa am mooy as ak mu tawaat moom

bu dul mutawaatir nag dañu xool si mbiru ñi ko nettal sanad yëpp kenn ko dañu xool ko ba sart ñoo xool ñu gis na mi ci moom bu dee mutawaatir nag kenn du xool loolu parce que sart mutawaatir bu ci dajee rek gëstu ci gëstuwaat la dañ koy jël te moo kaw itam lu dul moom waaw ndax ci mashhur te mashhur mooy lopp salaas bu dee fii nag bii mu nettali nii taqsim bii mooy taqsimu jumhur waaw am nañ ko taqsimi neneen am ñoo xam dañ naan xari xarib ak aziz ak mashhur ñoom ñëpp ñoo bokk fuñ nekk ñoom li ñu tuddee aaxaat aaxaat waaw mu toog fi beru moom kese moom nga xamne du dugg ci biir mashhuur waaye daa beru moom kon aaxaar mooy am ak mutawaatir am ñoo xam noonu ko tax siin aaxaar bi nag moo boole ñett yooyu yëpp mutawaatir beru fële ñu ko tax siin moom boobaa ñooñu xarib kenn la aziz ñaar mashhuur du ëpp ñaar du ëpp ñaar moom du ëpp ñaar te nekkul mutawaatir du ëpp ñaar te nekkul mutawaatir mutawatir nak mom don don don do ëpp ñaar moom it te dajale yi ñu wax xaaj xaajaan yeeg tur yéegi yëpp day wane rek coono buñ ci daj dara bu ñu daj ci xadis ba lu ci nëbboog lu ci kii lu ne daanaka ñu ñu ñu lijjanti ko gis ko kii lu am jeexit sax waaye te wane seen coono ak seen yitte ñu ko jox duñ dugg fenn ay masalan tey suñ jëloon masalan koo xam ne dañu sëriñ bi nee na bi nee ma. wala wala suñu tuwaay nee na la. Hmm. mu dul waaye li mu wax nag. kon nag tey ci dox yi sëriñ bi ba sori. dañuy wutal. ndax ak ni mu daan doxe moom. Mm-hmm. xëy na léegi loolu ko may moom. Mm-hmm. ni ko nit ñi di jàppe. mooy mm-hmm. ndox mi te loolu ñu koy diggante. waaw xam nga bu nga xam ne boo demee ci waxi sëñ bi. fi mu dem sëñ bi xam nga waxi sëñ bi moom amul. mooy mooy waaw waaw sëñ bi moom loolu def waaw. waaw déet mi mi ngi aju mi ngi aju ci kat moo ko wax mi ngi aju ci kat moo ko wax ak it la mu ci mbindam ba kii la yor bu dee fu du da ko bind ay yoon ci ci ci jamono yu wuute ci ëpp dundam ba ni fi jógee gis nañ mu koy bind ba noppi am ko wax lu wuteeg loola bokkut ak loo xam ne mas na koo bind xam nañu ma na ko bind ci benn téere am ko wax lu teg loolu mën naa am wax ji mujj mën naa am wax ji mujj wax ji mujj mbind mi